أسير مع الأبرار حين أسير وظن رجاني هناك أسير Abdou Khader Gassama sama mag la ñu bokk waajur bu jigéen mais allah macha allah xanaa ko di ko ñaanal suñu borom yàlla yokk leeral yàlla taas ñu si barkeem jàpp nañ ne ku war taasu ci barkeem lañ أمامي لخير الله أود مسيره يسير بي الجذب الذي غادني لا كريم عليه ما أروم يسير سكري بأقلامي وقلبي وجثتي mbaɗi man mbandinkol mbal be konton mbaw falale fana koto ma min kata abdoulkadir dies jeylani tala ay min soto afole ya adoku ta manke azarti momo ye fen min fi wala nyanta falin nay wa mudi wasilati qadiman lahu wal qadim yamira ajari ala al wahab maa ngi tudd Soxna doom sëñ Gassama نزاري كوني عبد الراس وحده قديما لخير الخلق وهو النسير يجيرني الكافي بي من زريدا waaw asiir خادم النبي وعمر البرايا للإله يسير سوري وأيامي عدم لي سواهد بكوني عبد الله وهو شهير ستاري في الدارين مجيء محمدا بنزم ونسر وهو نعم ستور بزاري léegi sëñ Gassama ginnaawam ak kanam yëpp leeral nañ ñoom Mor Yande leeral nañ soo soose la waaw soose papa moo ñëw soose la waaw soose lu ma wóor te wóor mooy soose la waaw gasama soo cosaanu soose la ko xiir si yoon si yoon Seexul Xadim وهب لنا رشدا وتوفيق يا الله ودمرا كل أحداء تدير بنا قبل الوصول لنا يا الله يا الله fii la juddo xànq ah, ji moom moom moo moom fii la juddoo te ku la même même yow mii bu njëkk nga doon dégg Grand Dakar ak moom ni mu fi juddoo màggee fi sos lii ba réussir si ah kooku di ko ne jërëjëf rek di ko jë di ne jërëjëf kii tam témoin la si lu ko fekkee ak fu mu ko indi ah alhamdulilah. nan loolu ndimbalu Seexul Xadim loolu baatin la bu nga xam ne daal ndimbalu Seexul Xadim ah, parce que yàlla mu ngi wax si Alxuraan mu ne lu mu namm si jaam bi mu ne mu nekk day nekk Seexul Xadim tam yoonam. ku ne kii dina doon sama taalib si zahir ak baatini foo nga doon taalib côté boobu moom dañ ko delloo Seexul Xadiim waaw. jikkoom nag euh, it am na luñ ci xam mooy euh, ku foon la ku bañoon ku ko mere la maanaam fi mu ne bu yëgee ne yow mere nga ko jaral na ko sax ñëw yendu sil la sa kër bu yëgee ne rek am na luy bëgg a dox sa diggante day romb rek ne la dimanche day dem day dem Pikine ci beneen yitte. waaye daal di ñëw romb sa kër jaar ne damaa jàddoon fii rek doon nuyoo ma bañ laa teggi bu ko defee nga sulli waxtaan jàmm daal di am loolu ku ko seetlu ci moom laa. su fee wax mag lu ko naqari yàlla xam na ko Jeylaani Gassama bu la fekkee ngay wax mu di la nuyu fekk la ngay wax sax day taxaw ba nga nuyoo ba nga wax sa soxal ba mu taxaw ak yow ca yaram ba ak tegginam ya nuyu la bu sel soog a dem du xipp xool nit. liggéeyal sëñ Touba rek da koo ñoroon. képp ku mun a àndal ci Grand Dakar loolu lay ànd ak yow xam nga rek yoonu sëñ tubaa moom toujours gu jot soo siy dugg dafay bari ñoo xamante ne bii dañ naan du dem ak comme ni ko sëñ tubaa dundee rek moom noonu la ko fi doon dundee waaye taxul mu faale ci kenn su àllarba jotaan basangam yi dina ko lal moom ku ñëw ku ñëwut dana ca jiitu moriande mi doy na ci sedd def ca la muy def ba ku ñëwul sax du feeñ ndax la muy def mujj gi ñu bari gëm fii sëñ Touba tey yaram moo gën a tax mu dugal ko ci. parce que dañuy bëgg di leen gis gis da ngeen ñuy fàttali dañuy fàtte jéeraan mais saa yu di gis rek ñun dañuy fàttali ko jéeraan. bariwu ci ay morom de wax dëgg yàlla. Jeylaani yàlla am na du ko yàlla may moom.